gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñuy ñu ci yenn kàddu yoo xam ne El Hadj Ousseynou Diouf moo ko yëkkati ci diggante problème mu Roi Sané ak Sadio Mané mi ngi ko yëkkatee ci Source A mu nekk euh, benn journal boo xam ne journal am doole fii ci Sénégal mais laata ñëw ci kàddu yi di gën a xuus dañoo yéen ñi gën ci page bi ngeen abonné da ngeen bës ko notification bi pour ngeen am suñ ay vidéo au taaral fii ci Roi Sport ñëw nag ci El Hadj Ousseynou Diouf kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko li wax nag lenn mooy man El Hadj Ousseynou Diouf affaire bi en noonu ma yëkkati samay kàddu ndax dama jàpp ne ñaari xale yëpp ay doomu Sénégal lañ mais kàddu bi yëkkati mooy nee na affaire bi lu yàgg am ci biir Versailles la ndax moom ak ki nga ne mooy Khalilou Fadiga mas na def lu mel noonu ci biir Versailles ba xaw a saagante dënnee jóg nee na mu nekk loo xam ne booba métti na wante nee li cëpp tey mooy maire amem Khalilou Fadiga moom la te Fadiga tamit ay jóg mooy maire amem mu nekk loo xam ne nee na loolu mooy football football des fois dañuy jóg tàngooram mais nag loolu lépp dañuy xool ni koy calmer mais li man tam ne booy wax nga xool li raisonnable li nga wax ko léegi bi nga ko déggee nag wane ki nga xam ne mooy Souleymane Sané papay Roi Sané nee na kàddu yu ko wax nag kàddu yu daw yaram loolu la leneen la ko wax mooy Sadio Mané ak Roi Sané ñum ñaan ñëpp samay ñaari doom lañ kon kàddu yooyu nga xam ne Pape Roi Sané moom la yëkkati soo xoolee kaddu yoo xam ne kaddu yu équilibre la kon kooku mi ngi waaye ne moom doomu Sénégal la doom tamit doomu Sénégal la kon nag war a ñoo mën yoo xam ne ëllëg gàcce du am mais man day sama benn xaat mooy wax nekkul loo xam ne en tant doomu Sénégal noonu la war a waxee Roi il faut ñu nangu la fi nekk même bu nekkee doomu sénégalais gëmul Sénégal la gëm Sadio Mané moo gëm Sénégal kon ñun Sadio Mané am droit protéger ko kon gars yi doo ma nekk fi de wéy na amoon commentaire te partagé merci beaucoup am nga jaajëf bu baax a